lan la Macky Sall di ut ki nga xam ne moom mooy Djiby Gueye nekk chef protocole bu président Ousmane Sonko di leader bu Pastef daldi nañu koy aaye nag mu dugg kër président Ousmane Sonko moom chef de protocole boobu moom rek naka lañu ñu nangu woon mu daal dee dugg kër pros ndax moo fa daan yóbbu li nga xam ne moom mooy ravitaillement ak yóbbante yi tey nag tere nañ ko mu dugg ci boobu kër yóbbu li nga xam ne moom mooy ravitaillement yi ak lépp loo xam ne rek famille président Ousmane Sonko dal di nañu koy soxla ba tey nag fa nga xam ne moom mooy cité kër góor gi la ñu fa barricade jëm ci ay force de l'ordre ak barricade yi ñu fa teg ba léegi kenn jëlee wu ko fa kenn dindi wu ko fa kenn nag amul accès dugg kër président Ousmane Sonko même ay avocat am sax mënuñoo dugg kenn dong moo fa mënoon dugg muy chef de protocole di Jibi Gueye Ndiaye te tey aaye nañu ko lan nag la nguurug Sénégal wala Macky Sall bëggal ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko wala nag posone gi ñuy laam-laamee naan Macky Sall dafa bëgg posone Ousmane Sonko foofu la ko bëgg jaarale ak lu mu ci mënti demee daal dina doy waar loolu njabootu président Ousmane Sonko di dund ndax kat ka fa daan yóbbu ak dund nee nañ ko dootoo fa tegati sa tànk mu nekk nag mbir mu doy waar moo xam ne nag ñu ngi koy dundu ci jamono yi nga xam ne réewum Sénégal yépp nee nañu jàmm la ñu woote jàmm lañu bëgg wante googu lekk jàmmkat tant que gouvernement bi jiite wu ko askan wi eh, tamit du ñoom ñoo koy eh, jiite la ñu bëgg daal mooy ñu bàyyi président Ousmane Sonko axam ak yelleefam yi nga xam ne ñu ngi koy uh, salfaañe ñu daal di koy bàyyi nag mu nekk si jàmm ak salaam moo ko njabootam ndaxte mënatuñoo dikk mënatuñoo génn mu nekk lu uh, doy waar uh, loolu tey nag la ñuy laam-laamee naan Macky Sall milekat dafa bëgg tëj Ousmane Sonko ndax dafa bëgg a bàyyi rek ba nit ñi julli ji tabaski mu daal di koy jël tëj ko yóbbu ko kaso loolu nag nee nañu bis buñ ko defee rek moom mooy Sénégal takk jëppeet lay def te loole kenn ñaanu ko mu mel ni nag ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ak i àndandoo moom jàmm moom bëgguluñ ko Sénégal benn yoon ñoom daal seen bakken lañu topp ak seen poche ak lu mu ci mënti demee ki nga xam ne nag moom mooy président Ousmane Sonko dafa mel ni sax ci ak kaso lañu ko tëj ndax assignation à domicile lañu ko def wala sax résidence surveillée du dem du dikk mu mel ni nag utewul benn yoon ak ñañu tëj ci kaso yi fii ci Sénégal ak lu mu ci mënti demee Macky Sall moom di woote càmm dafa mel ni nag day matt di ëf